ngeen jot suñu vidéo nag foo ngeen mën a jot a xam ne moom mu ne Pape Malick nee na ne Pape Malick nee dafa am lu bëgg sëñ bi ñaan ko mbokk yi fi daje di bokki deret kenn ku ne. yéene bi nga am ci sa moroom. yéene bi nga am ci sa moroom. taalibe yi fi daje kenn ku ci nekk yéene bu rafet bi nga am ci sa moroom. yal nay seen njëggal yowmal qiyaama. yal nay seen njëggal yowmal qiyaama. yàlla dara. yàlla yàlla topp dara. mën na ko ci barke yonent bi. mën na ko man ci barke mag ñi waaw kon sëñ bi gisaako laa waaw waaw jawri nit nee na sëñ Mbàkke yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko lépp man na ngeen jot suñu vidéo a jot moo mën a xam li